Mm-hmm. qui va commencer par un récap. De, ouais, du, du match d'hier mais avant de parler, avant de parler du match d'hier c'était juste pour vous dire que c'est le charme aujourd'hui du sport hein parce que le derby qui nous attend ce week-end c'est le football local qui a qui a l'honneur mm -hmm. TFC contre Agel deux clubs rufisquois moo tax ñu invité ki nga xam ne mooy président AGEL bi nay leer waay ñu xam ni kilifa ngay wax <laughs> waaw ñu invité président AGEL bi président waa TFC bu ñu AGEL pare yeneen ñëw semaine prochaine incha loolu du problème plateau bi ñëpp ñoo ko moom c'est juste pour rebondir nag si sport bi demee démb autant pour moi démb Sénégal ba doon dalal Burundi loolu nag nekkoon sixième journée doon clôturer li nga xam ne mooy éliminatoire CAN 2025 wax ci bu baax El Hadj Malick <laughs> doon def sixième journée éliminatoire CAN 2025 Sénégal nag démb def jaloore lu ñu ko xaaree Sénégal yaakaar naa ne doon kenn dootu ko présenté dém nag euh, def na match bu ngande si nga xam ne mooy stade Abdoulaye Wade gagné 2 buts à 0 révélation mën nañ ko wax mooy ki nga xam ne mooy Habib Diarra xam na ne gannaaw bu mu defee ak contre Burkina Faso xam nga ne Burkina Faso moo ne njëkk dajek Sénégal ñu mhm. yóbbu ko Mali benn but boobu ku ko dugaloon mooy Habib Diarra mu ñëwaat fii tamit confirmé dugal deuxième but trois buts en deux matchs je pense que loolu c'est une première def na ko réussir ko aujourd'hui Sénégal mën nañu wax tiré na bilan bu positif ci éliminatoire yi parce que def na six matchs am cinq euh, cinq victoires ak benn match nul mais mm-hmm. am na leen tamit li nga xam ne amoon na ci déroulement li nga xam ne mooy éliminatoire yi parce que xam ngeen ko Aliou Cissé ci biir éliminatoire yi dañ ko arrêté woon contrat am contrat am dafa jeexoon ñu mujjee ko mu mujjee bàyyi li nga xam ne nag mooy équipe nationale Pape Thiaw ñëw Pape Thiaw tamit bu mu ñëwee mu nekk coach intérimaire ñu tegoon dara ci loxo bi ne li lañ bëgg nga def ko mu def 4 sur 4 sur 4 mooy 4 matchs la joué gagné ko dugal 8 buts. Sénégal am 16 points nekk leader groupe L bi defe naa du une surprise sur les dans na nekk leader ci éliminatoires yi. di wax rek ne c'est Pape Thiaw mais la question qu'on se pose aujourd'hui mooy est-ce que Pape Thiaw va rester mais avant loolu joueurs yi bu ñu joué pare xam nga comme d'habitude on est ci kii yi nu mu zone mixte bi pour demander leen seen réaction di dem xool réaction buteur bi mais ak joueurs yi ban bilan lañ tiré ci li nga xam ne mooy éliminatoire CAN Non, après, euh, je pense que je pense que toute l'équipe a, a, très bien joué. On a on a suivi les consignes du coach et c'est ce qui a permis de, de, gagner le match. Après voilà, faut faut continuer de, de travailler parce que c'est jamais assez. Faut toujours se remettre en question pour euh, repartir euh, à 100%. Quand je rejoue à mon poste, c'est vrai que je me suis plus libéré, mais après que ce soit sur le côté ou euh, ou que le coach me met, bah je me donnerai toujours à 100%. Bah, c'est une fierté pour moi et je pense que c'est un travail que j'ai accompli durant cette saison. Donc euh, je vais continuer de, de, travailler et continuer sur cette lancée que je suis en train de faire. Euh, objectif lool pour ñu qualifier euh, si premier ñi nekk premier si groupe bi euh, yàlla def nañu kii euh, réussir nañu si objectif bi on sait que. am na compétition bu nekk suñ kanam mooy qualification kii bi coupe du monde bi donc léegi foofu la ñuy concentré fàtte coupe d'Afrique éliminatoire coupe d'Afrique. ça je pense que comme le coach l'avait dit que c'était pas encore terminé que le boulot va commencer maintenant pour euh, préparer en mars et l'objectif euh, de la qualification aujourd'hui. Bah, très positif, on a un match nul et que des victoires. C'est vrai qu'on avait très mal, très mal commencé. Mais l'équipe a su euh, bien, bien, rebondir avec euh, des victoires à domicile et à l'extérieur, ce qui n'est pas facile. Vous avez bien vu qu'en Afrique, euh, même les gros, maintenant, ils perdent à l'extérieur. Voilà, c'était important de bien finir l'année et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est très content. La qualification du mondial maintenant. C'est ça, mais déjà bien se reposer, bien profiter de, de, cette victoire avec nos familles et nos, et nos amis. Après, voilà, la prochaine fois qu'on va revenir, je crois c'est au mois de mars. Donc euh, voilà, on a d'autres qualifications qui vont nous attendre, qui seront moins faciles. Voilà, c'est très bien déjà de finir positivement aujourd'hui et de bien se ressourcer pour la prochaine fois. C'était juste euh, le travail de l'estaf et que c'était bien. C'est comme... Ah, juste adaptation, nous commençons à avec ça, surtout sur le côté gauche. Donc nous essayons juste, euh, voilà, nous continuons à lancer, nous Juste merci. yéen ban constat ngeen def. ah yow plateau bi la laaj ban. man de sama constat léegi El Hadj Malick Diouf dong la. yow ban constat mais président na ah, y' a que les jeunes qui ont parlé. y' a ah, que les jeunes la relève qui s'assure. voilà voilà loolu la nga sunu doomu baay nga xam nga ne mooy sunu lépp. mu ñu sañoon mu def ci loo xam ne football kenn du ko ci def. li nekk ci tànk gaa yëpp yàlla na ñëw ci moom. waaw gis nga comme mooy résumé mooy la relève maintenant et assurée parce que boo gisee interview bi y a jeunes qui ont parlé Lamine Camara El Hadj Malick Diouf ki nga xam ne mooy Sabali il vient pour son premier match mu def passeur décisif je pense que loolu loolu il l'a mérité bu ñu li nga xam ne début saison bi nga xam ne mu ngi def club am bee di Metz mu dugal huit buts ñu Pape Thiaw woo ko tey mu parce que jox na ko temps de jeu au-delà de ça aussi ñu changé nañ ko ni ñu ko doon utiliser parce que piston lañ <laughs> ko doon def bëri na débat Aliou Sène ñu ko doon utiliser baaxul tey nag Pape dugal na ko mu def loo xamante ne mooy ñetti but mën nañu wax ne relève bi moom fi mu toll nii c'est assuré li ngeen xam ne ne moom la ñuy nag